Buzz Media fii da leen jàmm yéen ñi nga xam ni yéen ñuy teewlu file ci Buzz Media fii la seen des patriotes da leen jàmmoo bu leen fàttee abonné waaye naka dal di bës kolos bi ngir lépp luy actualité ak lu xew ci réew mi wala sax bitim réew ngeen doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a dal di jot dañ koy doore ak ci. édite bi nga xamante ci nii moom la président de la république du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dal di demande ngir ñu dal di caytu bépp alal joo xam ne dañu ko luubal waaye nag bépp alal joo xam ne fa nu ko jaarale jaarul waaye nag bépp alal joo xamante ci ni dañu ko dal di sàkkal pexe lépp ñu dal di koy andiwaat ci keesu réew mi moom président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye dal di audit ñu bëree bëri ñoo xamante ci ni kat laale nañu ci joojee alal ji nga xamante ci ni moom la ñu wax ne dañu ko dal di dal di yàq waaye nag koy sànq ci yoon woo xamante ci ni leerul moom sax ministre Ousmane Sonko ñu gën koo xam sax ci premier ministre dal di wax ne képp koo xamante ci nii kat da nga laal ci alal ji nga xam ne moom la ñu luubal fii ci réewum Sénégal comme mën a doon foo mën a nekk daañu la dal di jàpp nga dal di fay nga xam ne danga koo dal di luubal bu dee ko xam ne nag da ngaa yor ay kër fii ci réewum Sénégal wala sax fu mu mën a nekk daañu dal di susir kër yi dal di koy jaay wala sax ñu dal di koy def loo xamante ci ni ab liggéey la bopp Sénégal koy moom waaye pa yow mbirum njiital parti Pastef Ousmane sonkoo ci ñi nga xam ne dañoo luubal alalu réewum Sénégal moom Mame Mbaye Niang ñu milliards gannaaw bi mu yëkkati kàddu dal wax ne rapport boobalee am na boobee ba tey ñu dégg ay audit yu bëree bëri commencé di xew rawatina député wala sax ministre yi newoon ci groupe bi APR bu mbaax Bokk Yaakaar ñu bari ci ñoom daa ñu leen dal di jàpp ngir kat dal di xool ndax ñoom taq nañu ci alal ji ñu luubal moom président Macky Sall Omar Sow dal di koy tuumaal wax ne jëndoon na ab jek privé